salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi li ñu dajale tey mooy joxe woon suñu position ñun FC 25 ci e, waxtaan bi nga xam ne njiitu réew mi Macky Sall amooloon na ko démb ak ay taskatu xibaar e, li ñuy ñawlu nag mooy dafa am benn décision bu conseil constitutionnel jëloon le 15 février mooy la décision 1C moom mu jógee ci décision boobu le 16 mu ne dégg na li conseil constitutionnel wax liñ doon xaar. moo doon mu tontu ne dinañ woo candidat yi ndax ñu defoon nañ communiqué pour wax ni ci wàllu jongante yi ñu jëm bu dee am na ku njiitu réew mi war a waxal wala ñi nga xam ne ñooy ŋànk mbirum ay jongante yi ñu jëm ñooñu bu ñuy war a waxtaan collectif candidat yi la war a waxee donc euh, ñu doon xaar donc mu tontu ci yàlla def na nag ñu ngi toll presque ci huit jours ba léegi tontoogu ci ñu koy ñaawlu ndax dañoo jël sénégalais en otage. dimanche bi la sénégalais yi waroon tànn ci jongante yi jëm ci premier tour bi mu nekk dimanche buy donc lu roojee ak dimanche bu ñuy suul démocratie wu Sénégal te loolu dafa xaw a doy waar ñu war mu war a nekk benn xeex bu nga xam ne ñu ne war nañ ko xeex donc li ñuy am yéene def dimanche bi déggoon ngeen ko mooy dinañ wone ni sénégalais yi seen ax seen yelleef ba ñu bëggoon nangu seen loxo dinañ ko firndeel dimanche dem ci seen centre de vote yi ak benn bulletin bu rouge pour wane ni lii Macky Sall def mooy dax élection yi ci ay anam yi nga xam ne kenn xamu ko ñun rafetlu wuñ ko ñun sénégalais yi suñu ax ak suñu yelleef dinañ ko sàmmal suñu bopp. di jëm ci dialogue bi muy woote nag moom it bu soobee yàlla ñun dinañ woote suñu dialogue ak suñu ay citoyens sénégalais ndax ñun duñu dem ci jaloog bu nga xam ne lenn rek mooy objectif bi mooy wone ni. sénégalais yi maanaam politiciens yi jubóowuñu ci nu ñuy déroulé ndax boo boolee ñi bokkul euh, objectif naturellement ay désaccord ngay am donc ñu koy ñaawlu li ñu bëgg nag mooy njiitu réew mi xam ni ni ko sartu réew mi mayee ay sañ-sañ noonu la mayee assemblée nationale sañ-sañ noonu la mayee magistrature sañ-sañ te donc conseil constitutionnel bi nga xam ne moom mooy atte ci mbirum élection c'est le juge des élections moom moo ko ne doxalal ni mu waree avant le 2 avril solo le conférence 14 pour que pour joŋante am donc ñun ñu ngi koy wax ni lii moo ko dese ci digganteem ak sénégalais yi mu sàmm ko pour jàmm réew mi ndax jàmm réew mi du mbiru politicien mbiru ay institution la mbiru ay compétition yi nga xam ne dina indi respiration buy tax ba jàmm am ci réew mi donc mesdames et messieurs. le collectif FC25 que vous, qui vous a invité aujourd'hui à ce point de presse vient réagir à l'entretien que le président de la République a accordé à la presse hier, lequel entretien nous a tous laissés déçus parce que nous attendions que le président de la République dise dans quelles conditions la décision 1C du Conseil constitutionnel du 15 février devait être appliquée. Malheureusement, Contrairement à sa lettre du 16 où il disait prendre acte de cette décision, nous voyons qu'il ouvre d'autres brèches. Il lui était demandé dans cette décision, au plus vite, d'organiser les concertations qu'il fallait pour que le scrutin se tienne et que cela se tienne dans les conditions normales avant le 2 avril. Nous avons entendu le chef de l'État parler de concertation avec des acteurs politiques qui ont des intérêts concurrents. Donc nous pensons que le dans cette discussion, c'est de montrer à la face du Sénégal que les politiques ne sont pas d'accord sur le déroulé. Donc, puisque nous connaissons son objectif, nous, nous refusons d'aller à ce dialogue. Le seul dialogue que nous acceptons, c'est le dialogue que nous avions préalablement défini en disant que les seuls interlocuteurs des autorités en charge des élections, c'est le dialogue entre les candidats et eux. Aucun autre dialogue ne peut être possible. À défaut, nous lui donnerons l'occasion de poursuivre indéfiniment ce mandat qu'il va utiliser sous d'autres formes. Nous avons entendu la communauté internationale réagir hier. Ce qui est dangereux, c'est que dans cette communication, la communauté internationale semble dire que le 2 avril est consacré comme la fin du mandat et qu'ils s'en réjouissent. S'ils veulent aider le Sénégal, qu'ils comprennent que leur responsabilité, c'est d'être aux côtés des Sénégalais qui sont fatigués par cette crise qui ne finit pas. Et que donc cette pression qu'ils ont maintenue pendant tout ce temps-là, pour que les élections se tiennent à bonne date, ou à défaut qu'elles se tiennent le plus régulièrement du monde, que cette euh, communauté internationale continue de comprendre que le Sénégal n'est pas prêt pour le moment à tenir cette élection pour, à cause justement des manquements de l'exécutif sur le déroulé de, du, de la procédure. Donc nous les invitons à être aussi mobilisés que les Sénégalais qui vont l'être et que résolument, ce dimanche, les Sénégalais montreront que le droit au vote qui leur, qui a été volé va être consacré par un bulletin rouge pour montrer que c'est la fin du, du processus, c'est le début du processus qui mène à la fin du mandat de Macky Sall qui s'arrête le 2 avril et que résolument son dialogue sera remplacé par un dialogue entre les candidats et les citoyens les lundis et les mardis. Et pour ça, la coalition FC25, la, donc le front FC25 reviendra avec euh, les éléments d'information qu'il faut. Nous appelons tous les citoyens à la mobilisation pour qu'on comprenne que le droit sacré de vote, qui peut être spolié cette fois-ci, peut être défendu par eux-mêmes de concert avec tous les démocrates du pays. Je vous remercie. Merci, président Bonjour. tous nos anciens dirigeants, nos anciens chefs d'État, présidents de la République, à des moments situés et datés, arrivés en ces moments où chaque dirigeant doit faire face à son peuple et prendre les grandes décisions, ils ont tous été capables de les prendre. En 1980, Senghor a su prendre la bonne décision et partir. En 2000, Abdou Diouf a su s'élever. il s'est levé de son fauteuil et l'a rendu au président Abdoulaye Wade. Et en 2012, dans un contexte incertain, très trouble, le président Abdoulaye Wade a su s'arrêter. Il a su se retirer et a cédé le pouvoir à Macky Et 12 ans après, alors qu'on s'attendait à ce qu'avec Macky le Sénégal rentre dans l'ère de maturité démocratique, l'ère de consolidation des institutions. Voilà que Macky Sall refuse de faire comme ses prédécesseurs. Macky Sall pulvérise l'architecture démocratique sénégalaise. Macky Sall bafoue les institutions. Macky Sall trahit le peuple sénégalais. Macky Sall, on l'a déjà dit ici, n'a plus la légitimité ni la légalité de son côté. Macky Sall ne peut plus prendre aucune décision puisqu'il s'est euh, mis en situation de président hors la loi, puisque qui ne respecte pas la Constitution ne peut pas être un président légitime. Macky Sall, il y a 12 ans, avait fait un serment. Il l'a trahi. Il a osé, avec l'acte qu'il a posé, les différents actes, mais encore plus hier, alors que le Conseil constitutionnel a été clair, lui demandant de fixer une date, d'aller à l'élection et fixer la date de manière à ce qu'il soit possible de tenir un premier deuxième tour avant la date butoir du 2 avril pour qu'il parte. Il est dans le dilatoire, il ne veut pas céder le fauteuil et il veut ouvrir les frontières de l'incertitude, du danger euh, qui pourrait guetter le Sénégal. C'est pour ça que le FC25 sera debout comme un seul homme. le dernier rempart, les candidats validés par le Conseil constitutionnel et qui entendent défendre leurs droits et au-delà de leurs droits, défendre le droit du peuple sénégalais tout entier.